alla aaduma live bi fii lay amee kan leen ko léegi léegi léegi nii ngeen partage ko ñëpp ngeen abonné fii lay amee compte bi góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teranga ñu leen góorgóorlu salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi booba tey maa ngi gis ah ñuy def ay montage naan Macky Sall respecté wul kilifa diine yi Macky Sall kilifa diine yee ko bëggal boppam mu sëñ manqué respect kilifa diine yi barke alxuraanul karim yi munu leen a wax a wax a wax ba jege ba jaxase président Macky Sall ak ki nga xam ne moom mooy kilifa diine yi président bu mel ne président Macky Sall dootul am ci kaw suuf fii président bu mel ne président Macky Sall Sénégal dootu fi am ñun Macky Sall la ñuy topp Macky Sall la ñu bëgg Macky Sall la ñu gëm Sall ngaari lam dooro yàlla na sa jàmm yàgg yaa baax ci réew mi sansé nga Sénégal ilaa Touba ñëw na ilaa Diourbel nga waat ilaa Canada ngi ñëw ilaa Mauritanie ngi ñëw defar nga réew mi defar nga hôpital yi yaatu na teer bi ñëw na ray yi tali na président Macky Sall Sall ngaari dudal dudal dudal waaw